tey jii nag guddi gi nga xamante ni sëriñ bi indi na ko fii ci Xuru Mbàkke macha allah mu mu laytaaye ko li nga xamante ni mooy màggalu Tuuba gi nga xamante ni kenn ku nekk xam na ne amuñu lu dul màggal gi sëriñ bi ñëw guddi gii bokk ci guddi yi nga xamante ni mooy tijji li nga xamante ni mooy programme yi nga xamante ni fas yéene na ko liggéey sëriñ Tuubaa ci màgg gi nga xamante ni mooy màggaluk Seexul Xadim gi buñ génnee loolu lépp nag pàkk bi ñu taxaw mbokk yi muy Xuru Mbàkke mu doon dëkk boo xamante ni taarix la ndax tey bu ñuy wax taarix tey ci suñu maam jooju di soxna bu so mën nañ ne bépp histoire mën nañ ne lépp ci histoire yi nga xamante ni ñu ngi koy dégg ci moom fii la amee fii ci Xuru Mbàkke lu ci mel ne sàkket bi nga xamante ni bir na lool siiw na lool ci mën nañ ne ci yoonu murit macha allah ak leneen loo xamante ni feeñ na fii ci pàkk bu sell bi nga xamante ni fi lañ taxaw muy Xuru make lu mat fukki leer ak benn yoo xamante ne ay leeri seex na Ahmadul Xadim lañ ñu ngi fi di juróom benn yu jigéen ak juróom yu góor mu doon loo xamante ni ay jeexital la yoo xamante ni bërëb bi am na ko ku fi ñëw rek di nga xam ne bërëb bi bërëb bu màgg la ku fi ñëw rek di nga xamante ne bërëb bi benn bërëb la ci biir bërëb bi macha allah ngeen gis nag am set Mbàkke moom sëriñ Soy bu at mu yàlla sàkk mu fi dajale donga yeeg soppeek ñëpp maanaam di fi indi guddi ajuma goo xamante ni maasa allahu rabbi fu waay nekk rek fu ab murit nekk rek tey safoo xasida yi ak alquranul karim mais ñëw di ko ànd ak moom fii ci xuru tey jii nag mu jàpp ko dibéer mu doon guddik mawlud goo xamante ni maasa allah gis ngeen mbooloo mi foo leen ko takk rek weesu na ko xam naa dañ leen di bàyyi rek fa seene lépp loo xamante ne xew na fii ci Xuru Mbàkke tey ci guddig mawlud bi nga xamante ni sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Suhaybu amal na ko fi ngir laytaaya ko li nga xamante ni mooy màggalu Touba Touba Vision indil leen ko kon nees tuuti kon ñu dikkaate geen suñu yeneeni élément wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu